ci tem bi nga xamne ci lañuy nek muy leral lan muy wetal borom bi tabarak wa taala wetal yalla moy lan comme ko xamnañ ne moy tiabi aljana ku wetal yalla da ngay duggu aljana xamnañ ne bokale moy tiabi sawara ku bokale yalla da ngay dem sawara léegi kon day jaadu ñu xam lan moy wetal yalla daal di xamit lan mooy bokkaale bu ko defee ñu mën a wéetal yàlla ñu mën a bokkaale yàlla ñu mën a sori bokkaale yàlla wéetal yàlla ci gàttal mooy nga wéetal borom bi tabaraka wa taala ci ay jëfam nga xam ne lépp loo xam ne borom bi moo koy def doo am keneen koo koy defal kudul bor koy gëm ne moo koy def ku kudul yàlla loolu mooy benn xaaj bi beneen xaaj bi ci des mooy nga wéetal yàlla ci say jëf yow mooy ci jaamu yàlla nga wéetal ci yàlla ba nga xam ne amul leneen looy jaamu lu dul borom bi tabaraka wa taala loolu mooy wéetal yàlla kon ñaari mbir la bi ci njëkk mooy yi yàllay def loolu nag defe naa kenn wóoru ci woon di mën a bokkaale kenn sax ndax fés gum fés ne yàlla rek a ko man yàlla di mooy bind kon ndax am na keneen kuy bind ku dul borom bi tabaaraka wa taala déedéet yàlla rekk mooy kiy bind moom moo bind nit ñeeg jinne ñeeg mala yeeg lépp yàllaa ko bind moo tax suñ borom bi ne qul ara aytum maa tad'uuna min dunillah aruni maada xalaqu min al ard leneen li ngeen fi jaamu yu dul yàlla yépp wan ma lu ñu fi bind maanaam suuf saa ngi noonu xool leen lan ngeen di gis ne loola ñoo fa bind ñooñu mënuñoo bind dara moo tax mu ne inna alladina tad'uuna min dunillahi ibaadun amthaalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum saadiqin ñi ngeen fii jaamu ñu dul yàlla li ñëpp ay jaam lañ kom yéen feneen fa mu ne lan yaxluqu shay'an walaw ijtama'u la mënuñoo bind dara doonte ñoom dañoo dajaloo woon sax pour def ko même aweñ sax sax mënuñ koo bind kon nga xam ne bind yàlla rekk a koy def kooku wéetal yàlla la askanale ko keneen ne am na keneen koo xam ne moo fi nekk di bind jaam yi loolu mooy bokkaale bokk na ci wërsëgal inna allaha huwa razaq yàlla mooy kii wërsëgale kon dangaa war a gëm ni sa wërsëg ci loxo yàlla la nekk amul kenn ku yor wërsëg wi ku dul borom bi tabaraka wa taala wa ma bikum min nicmatin fa min allah lépp lu ngeen yor ci xéewal maanaam kon wërsëg woo mën a am wu man di doon yàlla nee na ci yàlla rek la jóge ci yàlla rek la jóge kon nga xam loolu gëm ko gëm ne lépp luy wërsëg ci loxo yàlla la nekk loolu ci wéetal yàlla la bokk dundal ak faatu ak rey yàllaa ko yor yàlla rek ko man yàlla rek moo mën a fob ruu wal ko ci nit ki nit kiy dund moo ko mën a dindi it ne xanaa balaa nga ko man day fekk nga xam fu ruu nekk dëgg la nit moom lim man mooy defi sabab sabab yi mooy nit ki am soxna pour wut doom sababu faatu mooy ñu rey ko wala jàngoro yi yéeg yooyu yépp kooku sabab la ci am amma jëmmi def ki kooku borom bi rekk koy def kon yàlla mooy dundal wa huwa alladi ahyaakum moom moo leen dundal summa yumiitukum moom moo leen di faat summa yuxyikum moo leen di dekkilaat it yu mel nii daanaka jurul woon toog di saraanaan yàlla rek koy def ndax lu leer la loo xam ne amul kenn ku ànd sam xel di ci sikki sàkk ndaxte képp ku toog fii di woote woone moom da koy def maa moom day bind moom ci boppam xam na ne moom dañ koo bind moom ci boppam waaye kiñ bind moom ndaka la mën a dëgëre fit bay taxaw ne moom mooy binde kuy woote woo fii ne moom mooy dundal wala mooy raye xam na ne moom ci boppam dañ koo dundal waaw moom bi nga xam ne munta dund lu dul buñ ko dundalee ndax mën naa dundal keneen déedéet kon yu mel noonu normalement jërul woon sax di wax waaye nag dañuy gis léeg-léeg nit beew àgg ci mbewte foo xam ne day taxaw sax yu mel noonu mu koy askanale nit benn mu koy askanale boppam ne moom moo koy def comme li nga xam ne euh, buur boobee bewoon tase woon ak suñ maam Ibrahim loolu la doon def ah suñ maam Ibrahim bi mu koy woo ci wéetal yàlla ne ko yàlla mooy dundal mooy rey mu ne ko man damay dundal damay ray qala ana uhi wa umit. xam nga ne loolu kep ku am xel da nga yegne ki lim wax ay nar la waye comme ka dafa bew bu ko neexee mu taxaw di wote wo cër yi def mu ne man it def motax suñu mam ibrahim mom moom tegu tegu tegalu ko ci dara dafa bayyi bobu rek andil ko bo xamne mom nopi rek la def mu ne ko fa inna allaha yati bi shamsi min al mashriqi fa ati biha min al maghrib yàlla de mooy fob jant bi di ko fenkale fii ci penk bi jant bi moom ci penk bi lay fenk yow nag fenkale ko ci soow bi bu fekkee ne yow li yàlla def da nga koo man aco defal yàlla moom jantam ci penk bi lay jóge di ñëw jëlal jant bii di jóge ci penk bi di jëm soow nga safaan ko mooy muy jóge soow di jëm penku xam nga loolu moom xalaatu ko ñemewut a wax ne mën na ko kon foo fekk koy bokkaale yàlla ci façon boobu mooy dafa xaw a dof waaye it dafa bew way laa loolu kenn wuru ci woon a xalaata bokkaale ànd ak lool nag tey jii ñi ngi gis nit ñi di ci bokkaale waat yàlla di fopp yi nga xam ne yàllaa ko man moo koy def ñu koy askanale nit masana naan nit mooy wàccee taw bi te moo ne yàlla day mooy wàccee taw nit ki ndaka lay wàccee taw te moom taw daan wàcc avant muy juddu bu faatooy taw di continuer wàcc kon ko doon wàccee taw bi avant koy juddu moo tax kiy wax yu mel noonu da dul bàyyi xel andu ta xelam léegi dañuy gis nit ne nit mooy wërsëgal jaam yi wala ñu ne xéewal yi ñu yor yépp nit sàngam moo ñu ko jox subhanallah nga xam ne léegi la nga xam ne borom bi tabaraka wa rek moo ko man moo ko yaayoo bu ñu demee ba man koo askaneele nit ne moo koy def loola booba kon xeetu bokkaale la goo xam ne gu jéggi dayo kon loolu mooy xeetu bokkaale gu njëkk gi mooy ngay fob dara ci loo xam ne yàlla ko jagoo di ko def nga di ko askanele mbindeef yooyu nag yu bari la yi yàllay def mom dafa bari lol te yomba xam lol bokku na ci yoya moy ki nga kan moy tëral mbiri aduna bi di ci soppaxndiku kooku moy borom bi tabaaraka wa taala moy dawal gudigi, ak bëccëg gi dawal jant bi moy indi taw bi moy dawal ngelaw yi dundu geek ak faatu gi yep ci loxom la nek wërsëg wi ci loxoom la nekk digg yi ci loxoom la nekk mbiru jaam yi ci loxoom la nekk loolu amul kenn kenn koo xam ne danga ko ci jàppale moom borom bi tabaaraka wa taala ci boppam mooy ki nga xam ne moo koy def léegi loolu buñ ko xamee wéetal ci yàlla mooy ñu gëm ne yàlla rekk moo koy def bokkaale ga mooy lan ñu gëm ne mbindeef a ngi goo xam ne dafay man yooyu yooyu bokkaale mooy fopp nañ nit jox ko cër bi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala moo ko yayoo amul keneen ku ko yayoo ku dul moom bokkaale gi euh, wéetal yàlla gi nag buñ ko xasee xam lan la ñuy jariñ lim ñuy jariñ day mooy ñu fopp suñ bopp fopp suñu xol fopp suñ lépp jébbal ko borom bi tabaaraka wa taala jox suñ bopp borom bi tabaaraka wa xam nañ ne moo ñu wërsëgal duñ ko duñ ñaan wërsëg kenn ku dul moom xam nañ ne moom mooy yore àdduna bi moo yore lépp duñ dimbalikoo ci kenn ci ku dul moom suñ xol bi it buñ jàqee duñ wallu ci kenn ku dul moom suñ lépp moom lañ koy jox bàyyee ko suñ lépp doyloo ko ci lépp bu ko defee moom borom bi tabaraka wa taala moo ñuy tëralal suñu mbir ci moom la ñuy wakkiirlu kon wéetal yàlla loo gën a def rek di gën sa wakkiirlu ci yàlla di gën a dëgër kon bu ñëwaatee leeral beneen xeetu wéetal yàlla bi ci des barakallahu fiikum ahsana allahu ilaykum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu Allimni TV